tourneur de dañ public dans ce pays moom moo war a daw ñun grenade warul tax ñu daw prison warul tax ñu daw garda bi warul tax ñu daw saxaar yi warul tax ñu daw donc yéen journalistes yi bàyyi leen di daw bu ngeen déggee tell ñun sénégalais yi nañu bàyyi di daw bu ñu déggee tell nañu fàttaliku ne yaay 14 sénégalais ki sont morts en mars 2021 bëri na si tey Sénégal ñoo xam ne bu ñu amee xëy ak gontu ginnaaw yàlla ce sont ces 14 victimes là donc nañu bàyyi di daw président Macky Sall du fi un troisième mandat illégal et illégitime du fi nek bu yóbboo bi mu jël ko li ni du dara li dara non c'est important que le monde entier sache ce qui se passe ici je n'ai aucune honte qu'on me voit blessé même si le prix à payer c'est qu'on voit mon caleçon c'est inacceptable qu'un député sénégalais soit traité comme ça tout simplement parce qu'on voulait voir le président Ousmane Sonko et aucun policier mënuñu wan nous juge buy wane ne nous placé en résidence surveillée Ousmane Sonko donc sa résidence surveillée de fait objective c'est illégal c'est illégitime Nous ñu nangu kuy sacrifier président Ousmane Sonko du ñu nangu keneen koo xam d'accord Nous ñu keneen dañ koy liquider. c'est des candidats. c'est des c'est des candidats. C'est des tirs droits. C'est des tirs à Non, le blessé. Le député un troisième sénégalais candidat à l'élection présidentielle ça c'est inacceptable c'est ça c'est inacceptable c'est mais il y a déjà des manifestations Il provoquent les troubles à leur public d'accord

bi nga xamné moy grenade euh, manam lacrymogène bi d'accord donc moom moo def góom bi euh, nek euh, ci sama poche donc lii li muy wane moy président Macky Sall tey jii ni mu rayé suñu fukk ak ñeenti bant ci mars 2021 non la nara continuer ray ay doomu adama waye dañuy sante yalla diko xamal ne góom yi wala bi nii bu ko nexé mu jël ko mom du nek candidat président Ousmane Sonko dina nek candidat duñu nangum liquider benen candidature xex bi day continuer da naka sax commencer gul na xamne ne jël suñu bakkan du tax xex bi jeex gaañ ñu du tax xex bi jeex et que duñu nangu résident surveillée bi nga xamne mom lañu tek président Ousmane Sonko duñu nangu ñu liquider ko politiquement ba du nek candidat duñu nangu mu liquider kenen may wax sénégalais yi nak président Macky Sall mom mi di détourner am amu Sénégal mom mo wara daw ñun grenade lacrymogène waru ñu dawlo ñom ñi sacc alalu réew mi Ray François Mankabou, Ray Nyenen ak ñeneen Mariama Sagna suñu Fukad fuk ak ñenti bant ci mars 2021 ñom ñoo wara daw donc ñun waruñu daw ci kanamu ay grenade lacrymogène waruñu daw ci ay kanamu sirène waruñu daw ci ay kanamu auto police ak auto gendarmerie Xex bi nak day euh, euh day continuer danaka mu ngi commencer la lutte continue et seule la lutte libère kuy bëree daan de kuy bëree Dan te inshallah dañuy daan Macky Sall président Ousmane Sonko que président 2024 2024 candidats yëpp nekk ay candidats jërë ngeen jëf